canal bi boo ko suivre mën na la motiver sa sport boobu ngay def nga mën ci def canal YouTube di jàngale li nga xamante ni moom ngay sa passion parce que kii loolu lay def Fausto Murillo la tudd canal bi nag tudd loon noonu d'origine parce que canal bi am na 11 ans dinañ ci ñëw après suñ duggee ci analytics bi mais canal bi borom mi ngi ko tudd woon Fosto Turbo la ko tudd woon Fosto Turbo léegi mu dem ba yàgg mu su changé ko tudd ko Fosto Morio am turam dëggantaan la si def voilà benn colombien la boo xam ne dafa nekkoon euh, Espagne ay jamono euh, mu dem ba yàgg léegi mu ñibbi Colombie bi mu ñëwee Colombie nag commencé di jàngal ay xale euh, nu ñuy defee ay entraînement ci ci mu leen koy jàngal ci mbedd bi benn jour mu filmé ko nag def ko ci YouTube. affaire bi euh, am ay commentaires yu bëri yoo xam commentaires yi da koo neex commentaire yi ñu ko commentaire wax ko bi daal li ñu ci def dafa baax nangam nangam mu motiver ko léegi heure buy jàngal xale yi rek mu koy filmer di ko def ci YouTube voilà boobu nag euh, day soog a YouTube xamuloon am na monétisation par la suite nag après bi nee ba yàgg la xam ni ndekete YouTube am na monétisation si lay soog nag organiser affaire bi commencé ko monétiser ba mu dem ba léegi am na li nga xamante ni mooy 5 millions 500 mille abonnés voilà la am léegi 5 millions 500 mille abonnés nga xam ni c'est énorme ñu koy partout si àdduna bi ñu nit koy suivre exercice yi muy def nit ñi di ko def boo xoolee ci leader bi lu mu la defal entraînant en casa maanaam nga entraîne nga def li muy jàng yëpp mën nga ko def sa kër entraînement yoo mën def sa kër la soxlu ngay dem salle moo tax ñu bëri ñoo xam dañu bëgg dañu bëgg a garder dañu bëgg def ay sport dañ koy suivre di jël sport da day def ay reto maanaam day def ay ay ay ay défi yoo xam ni da def ci ay 30 jours ne tibb entraînement bi laay ànd ak yow ñu koy def chaque jour chaque jour chaque bu amee 30 jours sa abdominaux yi dina mel ni abdominaux yu mel ni tablette chocolat wala yu demee noonu voilà yooyu lay def ak di wane ay lekk ñu war a lekk ci booy entraîné ak façon exercice moom fépp ci yaram exercice yu war a def pour muy pour muy dëgëral sa yaram wala muy joxe wér-gu-yaram yépp lay def voilà boo xoolee canal bi moom def na erreur bu bu bu rafet voilà dessiné na ci kër comme mu def la ne da ngay ci sa kër moo des nga kër la ci dessiné nii waaw bind ci ne da bi sa kër nga koy defee def fi heure yi nga xam ne moom la entraînement bi daw moo xam Colombie Mexique ak Argentine ak Espagne voilà Espagne comme la ne comme boole ko comme ñoom ay latino la ñoom dëkk yëpp la ñuy làkk espagnol dëkk yëpp lañ koy lañ koy suivre voilà même ñu làkkul espagnol mën nañ ko suivre parce que boo xamul li muy wax comme day def day filmer day def da ngay mën a xool di def mu nekk daal canal boo xam ni képp ko xam ni yàlla am nga passion ci benn domaine même bu fekkee du sport mais mën nga jël même idéem yow li nga am passion pour def ko mën nga jël même moo xam am na koo xamante ni abonné ci canal dafay dessiner mu mu mi créé na canal boom dafay dessiner ay ay tableau di ko di ko di ko kii di ko di ko filmer di ko def ci YouTube comme noonu la maam idée bi lan la Top Secret Lundi yi liñ fiy wane yow pour mu pour mu wan la ni maanaam sa passion bi nga am ak lu mu munti doon mun nga basé wu ci vidéo yi ñuy def ni am créativité def ko kanaal YouTube di ko di ko soo amee ñeneen ñu ko war a mën nga leen koy jàngal nga leen koy jàngal su mënee nekk gratuitement nga koy def su mënul nekk gratuitement tam même jàngale benn partie bu dee beneen partie mën nga ko def ay cours après di ci di ko di ci di ko jaay après nga def ko ay cours di ko jaay mais daal mu motiver la lancer la pour nga mën a dugg ci YouTube boo xoolee canal bi am na erreur c'est bien muy nekk loolu baax te lii ñu bëri dañ koy négliger képp koy seetaan vidéo bi te sa canal ay erreur bi amu ko maa ngi lay demandé nga dem defari header muy muy bannière dinañ ko wax bannière di ko wax illustration di ko wax header voilà di ko wax photo couverture yépp benn la nga dem defar ko après nga dugal ko parce que dafa baax ci canal parce que daf ci war a nekk voilà ku dugg sa canal rek li nga li ngay canal ci lan lay yëngatu fii nga xool def mu leer voilà loolu la nga résumé ko léegi boo xoolee gis nga euh, tur bi Fausto Murillo comme passé na 100000 abonnés gis nga YouTube certifié na ko certifié na euh, canal bi parce que canal boo amee boo amee 100000 abonnés rek am nga droit demander YouTube mu certifié la kanaal bi loolu mooy euh, YouTube day vérifier kanaal yi ci YouTube yëpp bu fekkee yaa ci njëkk nekk canal bi am 100000 abonnés te amoo benn problème ay droit d'auteur yooyu YouTube certifié la wane ni tur bii yow yaay ki ko njëkk jël am 100000 abonnés voilà loolu rek lay tekki nag voilà protéger nañ la mën ko ci clamé du la dara déedéet mooy tekki yow tur bi yow yaa ko yaa ko njëkk a tudd am 100000 abonnés ci YouTube loolu certification bi loolu lay tudd léegi keneen ku bind tur bi teg teg même bu amee 100000 abonnés du mën a am lii YouTube du ko certifié parce que yow lañ ko xas defal jeex na voilà pour ñu koy ñi muy jaaxal des fois tey nekk ci canal yi ñu xam ni loolu la léegi boo xoolee def na vidéo présentation boo xoolee so gis nga. Oh. résumé bi nga xam ni moom lay def ci euh, canal bi boo xoolee tam def na loo xam ne fii itam lu ma neex ci canal la muy jël na playlist yu bëri gisoo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 def na fi 10 euh, liste yoo xam ne yenn ay li playlist la yenn yi mu def ko par playlist unique léegi groupe de playlist comme bi playlist unique la gis nga playlist bi ci nga entraînement affaire tànk la moo tax nga def na route nas paranal gas pierre nas gis nga boo ñëwee fii gis nga yii pour ay kii la euh, biceps ak triceps yi moom lay wane fii voilà gis nga boo yéegee fii affaire diététique la maanaam comme ci nga lekk yi nga war a lekk moom la def fii ci playlist bi voilà bu ñëwee fii lu mu def bii def na reto di abdominales en 30 dias maanaam bii soo bëggee am abdominaux yi am dafay mel ni comme tablette chocolat ci 30 jours bis mu nekk mu wax la ni nga war a def topp ko ba 30 jours yi mat voilà gis nga moo tax da ci def par ay numéro jour bu njëkk bi deuxième jour troisième jour quatrième jour jour bu nekk moom la ni nga war a def boo ko toppee 30 jours nga am ab domino ko mii ma am loolu la wax foofu voilà waaw la ko topp ci nga playlist ba megg léegi bu boo ñëwee section playlist gis nga voilà monton de playlist voilà def normal benn bu nekk def na ko normal playlist dina am benn vidéo bu ñu def boo xam dina am benn astuce bu ñu wax ci playlist boo xam dafay tax playlist di référence bu baax ci YouTube incha allah bu ñëwee communauté ñu xool gis nga waaw communauté mi ngi koy partagé voilà parce que dafa am la beneen business bu muy def fii dinañ ci ñëw ci kanam bala muy jeex gis nga fii canal ñetti canal yoo xam ne présenté na bii boson la comme buy voyager day def ay vlog vlog mooy comme gars yi ñuy voyager di filmer fi dëkk ñi dem di ko dugal bi xam naa peut être frère am bi xaritam yi parce que Jean Moridio la tudd bi Musicae Arte à propos ñëw à yi nga résumé na fi li nga xamante ne moom lay def fii voilà nga fitness ca nag canal bi lan def di nga euh, fitness lay def voilà site internet xaal site internet bii laal doon wax waa après dinañ si dem ñu xool ko bu ñu paree ci analyse kanaal bi ñoo dem ci site internet bi ci nga réseaux sociaux yi ji nga def na réseaux sociaux yi def na paypal pour boo ko bëggee aider yooyu. léegi ñu dem ci analytics bi xool lan yan information la ñu social blade jox ci détail waaw bu ñu ñëwee social blade gis nga def na ñuy fëstoo canal am bi moo ngi am 1269 vidéo moo nekk ci kanaal bi voilà ji nga abonné yi ji nga cinq millions 500 euh, nombre de vues mu amagum amagum na cent 652 millions. vues la amagum pays bi Colombie la ci ci lan lay def ci sport lay def. moo ngi ko créé deux mille 2011 voilà ba mille août 2021 bii di ñëw lay mat 10 ans ron voilà am na 10 ans yu manqué tuuti léegi boo xoolee euh, li ñu ci intéressé fii def na ay détails yu bëri mais comme chaque chaque jour rek li ñu intéressé mooy monétisation bi fii bu ñëwee ci information yi am mooy information typique nekk ci canal bi après ñëw ci monétisation boo xoolee lu ñu defal yu defal nañu canal bi li nga xam ne mën na ko gagné par weer waaw dina mën a gagné deux mille neuf cent dollars maximum mën na dem ba quarante six mille trois cent dollars voilà mais canal bi comme canal bu canal bu nekk Colombie la te dëkk latino yëpp dañ koy seetaan ay Argentine latino lañ ca dëkk bu mag lañ Espagne dëkk latino la dëkk bu mag la te foofu ñu moo ëpp sax ñu ko fay suivre waa espagnol yi ak euh, argentin yi. voilà Mexique waxi noppi voilà dëkk yooyu yëpp dañ koy suivre dëkk ay dëkk latino lañ moo tax moo tax euh, euh, lu mu tëti bu fekkoon ni ay vidéom Colombie kese lañ koy seetaane moom mën na à peu près muy gagné lii muy gagné ay 2000 dollars si monétisation mais comme man wóor na ma ni moom waa yi ñu ëpp ñu koy suivre Mexique lañ nekk ak euh, Argentine ak Espagne moo tax foofu monétisation baax na moo tax minimum dina war a mën a dem ba ay vingt mille dollars waaw minimum lu mu tuuti tuuti tuuti vingt mille dollars moom dina ko mën am par weer ci monétisation AdSense pure et dure voilà loolu mooy li nga xamante ni moom moo si nekk vingt mille dollars bu ñu ko xoolee ñaata lay nekk après ci CFA jël vingt mille dollars multiplier ko cinq cent gis nga dix millions dina ko mën a gagner par weer ci monétisation li nga xam ne mooy. AdSense voilà xam naa tam nga ne 10 millions loolu mën nekk waaye bien sûr AdSense day fay lu ëpp sax 10 millions par weer am na nit ñu ci fay ko yëpp 10 millions par weer ça dépend ci comme tibo canal yi ngay def nit ñi lay suivre importance bi ñu am parce que moom boo xoolee gis nga bu dugalee vidéo vidéo dafay am ay vues voilà vues yu bëri lay am voilà gis nga yaa ngi gis vidéo bi mu mujjee dugal benn jour la am benn jour kese la amagum ji nga 39000 vues la am ci 24 heures voilà gis ñu ngi ko 60000 vues la am. xam nga koy xam ne vidéo bu ngay dugal chaque jour boo dugalee benn vidéo te ji nga boo xoolee ay moom du toog ay une semaine ak ay weer di soog a dugal de boo xoole vidéo bi benn fan lam kon lu muy tekk démb ko dugal vidéo bi deux jours lam ba bërki démb la ko dugal bii trois jours bërkaati démb la ko dugal bii quatre jours ji nga noonu bii bii gis nga topp ko rek nga xool chaque jour benn vidéo chaque jour benn vidéo la koy def xanaa mu absenté wala mu voyager sinon da koy respecté chaque jour benn vidéo chaque jour benn vidéo te vidéo boo dugal ci jour bi mën a mën a am trente trente mille vues kon taf-taf pour nga gagné ay dix millions si te mu nekk vidéo yoo xam dañ koy suivre ba pare amal affaire boo ci seetluwaat vidéo yi dañoo gudd ay vidéo une heure de temps lay def parce que day def séance entraînement complet lay def voilà gis nga vidéo yi boo xoolee heure yi gis nga nga bii mi ngi am lan une heure vingt sept minutes yi nga bii une heure quarante minutes yi nga bii une heure quinze minutes bis topp ji nga une heure quatorze minutes voilà tey comme ay une heure nangam lay am day am ay publicité yu bëri ci biir vidéo bi comprendre nga waaw tax monétisation moom day baax day am publicité yu bëri ci biir bi vidéo bi dafa gudd ci affaire sport lay def ñiy def publicité ci affaire sport dañuy bëri moo tax monétisation macha allah dafay nekk loo dafay baax voilà loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu euh, social euh, bled jox ci information léegi nag am na balaa ñuy génn vidéo bi comme loolu mooy li ñu la ci wax parce que pour vidéo motivation la pour ñi nga xamante ni am na sax benn membre boo xam ne xam naa moom mos naa ko wax canal bi xëy na bu gënee si bu suivre vidéo bi xam xaw ma ndax commencé na ko def wala moom ci affaire judo lay yëngatu yaakaar naa yii canal typique la boo xam ni ku yëngatu ci arts moom doo am jafe-jafe parce que comme ci yooyu ci lu ànd la pour mu koy pour mu pour mu pour nga mën ko suivre moom rythme bi muy demee pour mën a def comme moom moo xam ngay def karaté wala judo wala ngay def boxe wala yu demee noonu waaw wala ngay def kung fu et cetera léegi bu ñu ñëw demee à ñu dem ci beneen business bi nga moom lay def site internet bi parce que dafa def canal YouTube mais dafa def site internet voilà yaakaar na site internet bi Seguidores canal YouTube. am xool fii yaakaar naa fii la voilà gis nga site internet am moo nekk nii boo xoolee site internet boutique la ko def YouTube bi day jàngale vidéo yeeg yëpp di ko def gratuitement léegi nag ci site internet bi boo xoolee dafi def na fi ay boutique maanaam fii gis nga entraînement yi muy def yépp moom lay la defal fii après mun ko ko suivre bi def ko par pièce léegi gis nga t-shirt yi nga xam ne moom nag da koy sol dafa dem créer ay t-shirt marque boppam t-shirt yi da ngay jaay ci boutique bi dégg nga ay t-shirt ak ay short voilà yoo xam ni da ko def def ko ci markam di ko jaay voilà ji nga si suuf mu def fi su fekkee da nga bëgg def da nga leen da nga ko bëgg dimbali si paypal mun nga def et mun ko joxee 10 dollars 20 dollars 50 dollars ji nga 150 dollars mooy boo bëggee participer comme day jàngale gratuitement vidéo soo bëggee di participer def ay mun nga ko def fii voilà site internet bi loolu lañ def def foofu boutique voilà nga fi euh, euh, vidéo recettes yi nga yi vidéo yi nga xam ne mooy euh, kii vitamines yi nga war a lekk ak yooyu voilà léegi bu ñu ñëwee fii gis nga fii mu def tenda maanaam am na boutique fii ñu cliquer ko ko xool voilà gis nga voilà gis nga bu dee defal naa ay t-shirt pour jigéen ñam xam dañuy def sport ñu koy mën a jënd voilà gis nga t-shirt yaa ngi nii t-shirt yi itam pour nga koy mën a jënd la voilà gis nga yéen lii la def def créé ko si boutique bi gis nga da koy jaay prix yu baax ay 59 dollars yaa ngi gis ay 59 dollars cinquante dollars 50 dollars ce qui fait que léegi yow booy booy seetaan ay vidéo am di am ay résultat pour nga aider ko nga ñëw de nga jënd fi benn t-shirt wala des fois nga jënd benn short voilà de jigéen nga tam nga ñëw nga jënd benn. t-shirt wala yu demee noonu voilà wala yaa xam mun nga def donation comme ni mu ko defee léegi nag li nekk ci canal bi vidéo yi moom la tas fi entraînement yi par par par par playlist playlist moom la ko def li nga xamante ne mooy euh, ci affaire bi moo tax créé na beneen business ci watu euh, li nga xamante ne mooy YouTube bi nga xam dina ko indi ay revenu à part AdSense bi voilà li mooy li nga xamante daal mooy vidéo tey euh, li ñu leen indiloon muy vidéo li nga xamante ni moom mooy Fausto Murillo muy vidéo muy canal boo xamante ni dafay yëngu ci wàllum entrainement kon sa secret lundi bi fii lañ koy yemale di la wax ni euh, su fekkee nag dangay ngay domaine bi dafa nekk sa domaine boo xam sa domaine la mun nga ci lancé wu bu bu bu fekkul tam nekkul lii nekkul sa domaine mais am na beneen domaine boo yëngatu boo xamante ni tam vu canal bi mën na la inspiré voilà zéro la commencé deux euh, deux mille mille vingt 2021 egsi na cinq millions abonnés parce que ñi nga xamante ni sport intéressé na leen ñu bëgg ko bëgg ku leen ko jàngal am na ñu bëri dañuy dem ay saal am ay ut ay coach moom loolu nag mu defal la ko ci YouTube nekk sa coach su YouTube gratuitement moo tax ñu bëri euh, topp nañ ko ci kanaal bi kon ñu lay demandé bu dee am na loo xam sa passion la mun ko ko partager ak nit ñi non seulement di nga nekk sa passion ngay dundu nga xëy def lu la neex la en même temps mun nga si amaale ay revenu ci li nga xamante ni mooy YouTube léegi ñu lay jox rendez-vous ci Top Secret lundi ba lundi bii di ñëw incha allah rabbi jërëjëf